ñoom dinañ nuyu di leen ziar ci talaata bi di jiital ci nuyoo bi suñ kilifa sayyidi mawlaaya Sëriñ Ahmad Ali Haydara xafidahu llahu wa ra'ahu wa amadda fi zilli ak mboolem kilifa kër gi ñoom imam Cheikh Taha Sogu Cheikh Ali Badiane ak sayyidi Serif Al Hassan Haydara ak mboolem kilifay kër gi ustaas fi joxe darsi ñu mel ne Oustaz Moustapha Diba Cheikh Abdullahi Diallo Irak ak ñu jiite kër gi Cheikh Ousmane Diawo ak Cheikh Yahya ak mboole ñu ciy déglu di jéggalu lool ñaari semaine yi yu passé jotuñoo mën a joxe suñu darsu bi ngir ne daf ñu doon fekk ci ay xat-xat ñu ciy jéggalul bu baax a gannaaw loolu ñëwaat ñun tey ak yéen fas yéene continuer waat luñ commencé woon mooy xamu-xamu xadis te ñu ngi woon ci nas atu ilmul xadis nas atul xadis xadis naka la sosoo gannaaw suñ darsu yu passé waxoon nañ xadis si jamono yonent bi waxoon nañ lan mooy xadis ñu wax xadis si jamono yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxoon nañ xadis si jamono Aboubacar Aboubacar bu mu ñëwee moom ban mawqif la jël ñu joxoon leen dig ne incha allah darsu buy ñëw dinañ ci wax xadis ci jamono Umar ibn Xattaab xadis si jamono bu ngeen di fàtte masala boo xam ne toujours am koy fàttali ndaxte dafa am solo lool ndaxte ku xamul benn doo xam ñaar balaa ngay ne benn balaa ngay ne ñaar faw nga ne benn kon balaa ngay mën a comprendre dëgg-dëgg xadis ci jamono yu Umar ibn Xattaab wala afta après Umar ibn Xattaab xadis yan problème la am problème xadis fan la faw nga dellu ci bidaay bi faw nga dellu si ndey mbill bi looloo waral waxoon nañ ne jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaari kuréel ñoo amoon kuréel boo xam ne at taabudul mahd mooy ñoo xam ne luy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax rek ñoom ay bayfaal lañ fas yéeneen koo def dañ koy def laajuñ si lii laajuñ sa lee am beneen kuréel boo xam ne léegoo léeg yonent bi bu waxee dañu indi seen xalaat loolu nag du suñ waxi bopp walakin téere ñoo ko bind incha allah dinañ ci joxe ay tegtal léegi buñ xamee ñaari kuréel yooyu ñu xool xalifa bu ñëw rek buñ xoolee ci ban kuréel la bokkoon rek dinañ mën a xam moom ban mawqif la amoon ci hadis diggante ñaari kuréel yooyu nag buñ gestoo dellu si téere seyxaan Abubakar ak Umar ibnul Xattaab ban mawqif lañ amoon ci ñaari kuréel yooyu ñoom ban kuréel lañ bokkoon ndax dañ bokkoon si kuréel boo xam ne dañ nekkoon ay bayfaalu yonent bi yonent bi lu mu wax rek dañ koy jëfe du lijjanti waat leneen wala léegi dañ bokkoon ci kuréel boo xam ne léegoo la yonent bu waxee dañuy fexe di jëfe seen xel baay fee waxu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lu gën a feeñ rawatina Omar ibnul Xattaab moom si kuréel ñaareel la bokkoon mooy kuréel boo xam ne déggoo léegi yonent bu waxee day indi ay xalaatam looloo waral te buñ dina ci joxe exemple benn bu ndaw riwaaya boo xam ne rot na ci tiir bu ñëw al isaba fi tamyiz sahaba volume 1 safha arbo mia o arbo samani quatre cent quatre vingt huit ba tey na si téere bu ñuy wax xileetul alwi awliya rot na tamit si téere al iqdul farid volume deux safha miatain wa arba wa arbain deux cent quarante quatre ba tey na si téere bu ñuy wax al bidaya wa nihaya libni kasir al damasqi volume sept safha euh, page deux cent quatre vingt dix huit ba root na si téere bu ñuy wax musnad imam ahmad volume 3 safa waaxidoo xam sa taasa wax safa waaxidoo xam sa safa 51 kon nekk riwaay boo xam ne riwaay bu siiw la téere yu bëri rot nañ téere yu bari indi nañ ko riwaaya bi mooy waaj yu benn waaj yoo xam ne da doon jaamu yàlla xadis bi rot na ci saxaaba ñu ko nettali Abu Saïd al-Xudri bokk na fi Anas ibnu Malik Jaabir ibnu Abdullah al-Ansari walakin insha allah dinañ jël lafz boo xam ne Abu Saïd al-Xudri moo ko indi moom mu ne in mu ne in Aba Bakr Siddiq jaa ila nabi fa qaala ya rasulallah inni bi waadin kaza wa kaza fa ida rajul mutaxassim xasanul xaya yusalli fa qaala lahu nabi idhab faqtul dafa wax ne Abu Bakar Abu Saïd al mooy nettali riwaayam bi lañ jël dafa ne Aboubacar dafa ñëw si yonent bi sallallahu alayhi wa mu ko fekk naa si place sangam si kur sangam kur sangam benn mu ngi ragal yàlla lool mu ngi rafet melekaan dama ko fa fekk mu ngi julli yonent mu ne ko izhab faqtulu dama rey ko Aboubacar bu mu demee fekk ko si xaal boobu fa zahaba ilayhi Aboubacar ah, fa lamma raahu ala tilka al xaal kariha an yaqtulahu fa raja ila rasulillah bu mu ko gisee ci melekaan boobu mu dem fekk ko mu ngi jullit mu ngi ragal yàlla mu ngi ragal ragal yàlla ci zahir ah mu bañ koo rey afta si la dellu si yonent bi mu wax ko yonent bi yonent bi ne fa qala nabi Umar izhab faqtulhu yonent bi wax Umar ne demal rey ko Umar tamit dem fa zahaba Umar fa ra'ahu ala al-hal allazi ra'ahu Abu Bakrin mu gis ko ci melekaan boo xam ne melekaan boobu la ko Abu Bakar gisoon mu dellu si yonent bi faraja fa qala ya rasulullah inni raaytu yusalli mutaxassiyan fa karihtu an aqtulahu gis naa ko mu ngi julli mu ngi ragal yàlla mu ngi ragal lu yàlla bañ naa koo rey nag si la yonent bi wax qala ya ali izhab faqtulhu yow ali demal rey ko fa zahaba ali fa lam yarahu ali bu mu demee gisu ko fa fa raja ali fa qala ya rasulallahi lam arahu yonent bi ali dellu si yonent bi mu ne ko yonent bi mu yonent mu ne yonent bi man gisuma ko fa qala nabi إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يتجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه حتى يعود السهم من قوقه yonent bi joxoñ mu ne kii ak ñu mel noonu am na ay saxaab kii ak ñu ànd moom dañuy jàng alquran walakin alquran bi du weesu seen gémmiñ gi xadis bi nekk xadis boo xam ne bu siiw la mahallu saahid bi mooy lan yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa yebal na ñaari nit waaye ñooy buñ demee dañ bàyyi feelu yonent bi sallallahu alayhi wa digle woon ñu jëfe seen xalaat ngir ne lan seen xalaat jox na leen ne kii ku ragal yàlla kii mu ngi julli kon kii waruñ koo rey ñu bàyyi waxu yonent bi izha faqtuluhu rey ko bi ñu jëfe seen xalaati bopp kon loolu benn ci ñaareel bi buñ jëloo si sulul Hudaybiya nekk boo xam ne bu siiw la dinañ fa gis tamit ku mel ni Umar ibnul Xattaab da doon jëfee foofu xalaatam looloo wala da doon def itiraat ala rasul sallallahu alayhi wa alihi wa loolu nag du ñoom ñaar kese wala ñoom ñaar dañ ci dañ jël ñoom ñaar ka exemple ngir ne dañ ñoom ñoo woon walakin bari woon na si saxaaba yi ñoo xam ne léegoo-la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ne nii ñoom dañuy ne ne am na benn xadis boo xam ne rot na si Buxaari xadis nam numéro six mille cent un thousand one oh one yonent mu ngi wax ne ma baalu aqwaam yatanazzahuna an sey asnaahu fa wallahi inni la alamuhum billahi wa asadduhum xasiya xadis bi ñu ngi ko jëlee si Aïcha umul muminin Aïcha dafa moom dafa ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa defar dara am ñu si seexlu yonent bi dafa defar dara moo xam lekk la wala ne waaye am ñu si gis seen bopp seexlu si buñ si seexloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne génn mer mu wax ne maa baalu aqwaam yatanazzahuna an sayyi'atin lan moo waral ay nit ñoo xam ne dañuy seexlu loo xam ne ci mbir moo xam ne man maa koy defar fa wallahi maa ngi gën ci yàlla inni la a'lamuhum billahi man dem maa leen gën a ragal yàlla wa asadduhum xasiya te maa leen ko gën a fa wallahi maa ngi ci yàlla inni la alamuhum billahi man maa leen gën a xam yàlla wa asadduhum xasiya te maa leen ëpp maa leen a ragal yàlla hadis bi kalima yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu si utilisé dina ci faxmu ne ñee seexlu buñ ci seexlu woon nekkul ne seen e, yaram wala seen xol moo wala seen xel moo ci tey walakin jaay ne xam jaay xam-xam wala jaay ragal ragal yàlla ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu mu def sax ñu siy seexlu ndaxte su fekkonte ne seen bakken wala seen jëmm wala seen nafsu kese moo bëggut mun naam lekk bi yonent bi kon du ñëw euh, di leen si yedd walakin ngir ne seen jëf ji dañ siy def euh, dañ ko dañ ci mbubboo xam-xam ak ragal yàlla loolu la war a yonent bi yedd leen ci wax leen man maa leen gën a ragal yàlla man maa leen gëna man maa leen gina man ma leen ëpp xam-xam maa leen gina a ragal yàlla te man kon waru leen seexlu lu may def kon ñaari ñaari dafa nekk exemple boo xam ne dañ ko jël rek di joxe alxalifataani Aboubacar Umar bi xusuus Umar ndaxte ci jamono ñu toll ban mawqif la amoon si moo xaadisu nabi sallallahu alayhi wa sallam Euh, leeral na moom daa bokkoon si ñaareelu kuréel mooy kuréel boo xam ne léegoo léegi yonent bi bu waxee dañu indi seen xalaat bokkutoon si bay faal bay faalu yonent yoo xam ne yonent bi bu waxee rek duñ lijjante wat leneen léegi nag xadis yonent bi soo alayhi wa alihi wa sallam si jamonoy Umar ibn al-Khattab te nekk xalifa sani bi ñaari at gannaaw yonent bi sallallahu alayhi wa alihi bu mu gaañoo ndaxte Abubakar ñaari at kese lafa amoon si xilaafa gi si toogu xilaafa gi Umar moom bu mu faloo nag la jëflanteeg xadis tontu boobu Abu Hurayra dinañ ko tontul buñ temee ci téere bu ñu wax musannaf li Abdurazaq baabul kasbi ala nabi xadis numéro vingt mille quatre cent quatre-vingt-seize twenty thousand four ninety six xadis bi dañuy fa fekk riwaaya bi bu may wax nii qaala abu hurayra abu hurayra dafa wax ne lamma waliya umar qaala aqillu riwayat an rasulillahi illa fi ma bihi wàññi leen mu ne abu hurayra dafa nettali mu ne yulin umar bu mu faloo lamma waliya umar umar bu mu dafa wax ne wàññi leen nettali jëlee si yonent wa sallam lulut loo xam ne dañ koy jëfe kon Umar Umar bu mu faloo lii la wax te man xaj bi la teg mooy loo xam ne ñu ngi koy jëfe loo xam ne nguur gi ànd na ci ñu ñu ngi koy jëfee loolu moom nañ ko nettali loo xam ne nag nguur gi ànd na ci moom loolu moom nañ ko wàññi buñ ko nettali kon ñu ko waxee riwaaya bi mu ngi si musannaf Abdurrazzaq ba tey am na beneen riwaaya boo xam ne xadis bu siiw la xadis ñu ko gënee gënee xam xadis Xursat ibnu Kaab xadis bi dañ ko fekkee mustadrak ala sahihayn si téere bu ñu wax al mustadrak ala sahihayn numéro hadis 353 Xursat ibnu Kab dafa dafay nettali mu ne génn nañ jublu Irak jóge nañ Madina bëgg a dem Irak xaraj naa nuridul Irak buñ génnee nag Omar ibnu Xattaab gunge ñu Omar ibnu Xattaab bu mu gungee ba ci kanam si la ñu wax ne ndax xam nga lu tax ma gunge leen ñoom ñu ne ko ah waaw ndaxte ñun de ay saxaaba yonent bi lañ ndaxte dañ àndoon ak yonent bi loolu moo tax nga gunge ñu bugg a ñu gunge buggoo teel a taxale kook ñoom Umar mu ne la waaw loolu am na walakin lu ma leen lu tax ma gunge leen mooy yéen dangeen ngeen jublu ci ay dëkk boo xam ne ñoom dëkk bu yitewoo alquran la te moo tax bu ñuy jàng alquran seen baat yi ak seen baat yi nuy ànd day mel ni riiru yëmb mu ne yàlla yàlla yàlla bu leen bu ngeen fa àggee nag bu leen soxloo gaay ay ahadis bàyyee la ak alquran bi jaridul qur jaridul quran wa aqillu riwaya na wàññi lu ngeen di riwaya si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moomu mu ngi wax ne ñu ne mu ne bu falamma qadim na buñ demee ba yegg si waa dëkk bi ñëw nañ si ñun laaj ñu ah yéen wax lañ ñu si yonente wax lañu nettal lañu ahadis yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw yéen ay sahaaba ngeen àndoon ngeen at yonente bi wa alihi wa sallam walakin Qurza lu mu danoon tontu mooy nahaana ibnul Xattaab Umar ibnul Xattaab tere nañu ko loolu waral Qurza moom bu fa àggee du doon nettali kon loolu yëpp day wone ne Umar ibnul Xattaab si jamonoom dafa tere woon wala dafa wàññilu woon hadis nettali hadis te du nettali kese walakin bind bi tamit àndoon na ci terawoon na ko riwaaya boo xam ne mu ngi si kitaab taqyidul ilm ñu jële ko ci urwat ibnu zubair inna umar bnu alxatab arada an yaktuba sunan fastasara fi dalika ashaaba rasulillahi sal allahu alayhi wa alihi wa sallam fa asaaru alayhi an yaktubaha فتفق عمر يستخير الله فيها سهرة ثم أصبح يوما وقد أزم الله له فقال إني كنت أردت أن أكتب السنن وإني ذاكرت قوما kaanu qablakum katabu kutuban fa akabbu alayha fa taraku kitab allah ta kitab allahi taala wa inni wallahi la ulbisu kitab allahi bi seyin abada riwaaya bi comme ni ñu ko waxee mu ngi si kitab taqidul ilm ku ko nettali urwa ibnu zubair mu ne umar ibnul xattaab bëggoon na bind sunan yi bind ay ahadis yu nit yi sallallahu alayhi wa sallam bu mu ko bëggee dafa def musaawara diisoo mu diisoo saxaaba yi bu mu diisoo saxaaba yi saxaaba yi joxoñ ko ñoo yëpp ñu jox ko ne ah waaw bind ko bind ko yemu ci après toog na di def istixaara weer toog na di weer di ci xalaat di def si istixaara am benn bés mu xëy fekk dogu na ba pare yàlla riwaay bi mu wax waqad azama allahu lahu fa qaal inni kuntu aradtu an aktuba sunan moom Umar mooy wax mu ne man de bëggoon naa bind sunan yi bëggoon naa bind ahadis yi wa inni zakartu qawman wa inni zakartu qawman man de de wa inni zakartu man de dama wa inni zakartu qawman man de dama fàttaliku ay nit ñoo xam ne kaanu qablakum nekkoon nen di leen jiitu katabu kutuban dañ bind ay téere fa akabbu alayha ñoom buñ bindee yooyu xupp xupp ci dañ nekk ci téere bi fa taraku kitaaballahi taala ñu bàyyi téere yàlla bi wa inni wallahi laa ulbisi kitaaballahi bi shay'in abada man de du ma jaxaseeg téere yàlla bi ak dara riwaaya boobu comme ni nga ko waxee mu ngi si kitaab taqlidul ilm riwaaya bi fu mujjee wa inni wallahi laa ulbisi kitaaballahi bi shay'in abada man de du ma jaxaseeg téere yàlla bi bi dara dañuy daf ñuy fàttali euh, raziyat yowmul xamis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu waxee gaay ne leen ma si eh, eh, suñ luxal mu asira bi ka këyit mu bindal leen loo xam ne du ngeen ci réer ba faw moom Umar nafsu eh, nafsul kalima la tontu mooy lan xasbuna kitabullah mooy téere yàlla bi doy nañu foofu dafa ne woon yàlla bi doy nañu fii dafa ne wa inni wallahi laa ulbisu kitaballahi bi sayin abadan man de du ma jaxase téere yàlla bi ak dara kon Umar si manhaj boobu la bokkoon man xaj boobu la jëloon mooy lan xadis yu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léegoo léeg nañ ko wàññi wala jaruñ ñu koy bind te jaruñ euh, euh, jaru benn du euh, wàññi di ko nettali aqilu riwaaya ñaareel bi mooy buñ ko bind looloo continuer ba Umar ibnul Xattaab ñu ngi fa jógee ñu ngi jéggaluwaat beneen yoon tey incha allah lii la leen indiloon fas yéene continuer ak yéen beneen dars si talaata bu ñëw وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا والمجدين مرنم في جد الله جنغا لجد سير ريناك كفي الله جيلاني آل هيدا للمان منك أنجنك كلميت آل هيدار ركام جنة الفردوس جم نور ألف عيناتي سيري فؤاد كوليم قم جند آل هيدار ركام شابي الله جلا سري ففودي لادي أمها لها الله أله بقليها يهودي رتان آل هيران بأن دينهم ما endi ko sirifu faltoni kono allah kanye towal mun kanye reni ay هي جنة بسر فابت ونجن قل رسول الله ونشرك قل الله gaño allah gañɗo seri faaɓe woni julɓe gartirijo kala hunde into allahu sababuji men ko seri faaɓe mino yetta ali haydara أندن مي الله كل مي نور الله أندن مي قرآن بيمي بسيد حيدارا من بيم سيف لله بيمي زلفقار بل أنت سر موجود haidar si dubi ma da kewani irokki ma dubi anseri cukalon inodda allahu sabur de ali haidar